aousubillahi min sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala maulana rasulillah seydna muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa qaala aydan zaadahu llahu faydan min albahri alxafifi fasqi magnan bi taybatin ya xalili bi gurubi dumu'i warmi galili فابكي واستنجدا بواكي يا مزنين عفرا ساخي كل حد أصيلي ثم حدث تلك الربوء بما كان بدا قلبي من كل شوق قيلي وبأني كم قد وليت اشتياقا لم أبل في قد أزل عديلي bàyyi ne fasqi nandalal waaye yow yonente bi sallallahu alayhi wa sallam lan maxnan kër fan bi taybatin ca tayba yaa xalili ay yow sama soppe bi xurumi dumu ak ay baagu rongañ war mi xalili waay waay nan waay waay réparal waay sama sama sama sama sama sama mar maru xali mar bu mar boo xam wowal na sama pët bi waaw fab kii na nga jooy wastan ji dan ànd ak sooy jooy na nga dimbali ko ba waakee musnin wey jooykatu niir yi afiran na nga ruut na nga teg saaxi e yow sama àndandoo kulla xaddin bépp lex asili bu ratax ci suuf tay ba boobu soo fa demee na nga jël bépp lex bu ratax nga teg ko fa su ma xaddis ginnaaw loolu it na nga waxtaanee tilka rubu ci yooyule pàkk mooy dëkk bu sell boobu ak ay pàkkam bi ma kaaba da ci li nga xamante ne daj na ko jànkuwante na ko xal bi sama xol min kulli shawqi na xiili ci bépp mbëggeel boo xamante ne man Ibrahima Niass am naa ko mbëggeel goo xamante ne dina ragaloo nit wa bi anni kam qad walihtu ishtiyaqan lam ubal fihi qattun azalla azili wa bi anni nekk na it ci man Ibrahima Niass kam qad walihtu soo demee yow sama àndandoo soo demee ba ci place bu kaye boobu di Madina ci Tayba nga teg sa lex bi ruut ko foofu sareex bu ratax barkeelu ci place boobu na nga fàttaliku samay mbir waaye yonent bi ak waa waa place boobu na nga leen waxtaanee waxtaanal waxtaanee waxtaanal leen ci sama ci sama mbir xamal leen ne am na jaam boo xamante ne ah ñu ngi koy woowee El Hadj Ibrahima Niass ca Kaolack bëgg bi mu la bëgg yow yonent bi jéggi na dayo te it la xolam di jànkuwanteel ci xeetu mbëggeel boroom dem na ba wool yaramam wallahi foor na rëy na. waaye na nga ko xamal loolu waaye na nga ko xamal it ne kam xadd wulixtu ana ñaata ci ay bëri na bokk loo xamante ne Ibrahima xelam dem na wala xam mooy netakoo yi koo xamante ne xelam nekku fi daal lu muy dem dafa bëri mu ne kam xadd walixtu bëri na fu xelam demee moom Ibrahima Niass lan moo ko jàpp ishtiyaqan bëggeel mooy yóbbu xolam mooy yóbbu xelam lam ubal waaye nag man bàyyi du ma faale fii ci loolu ci mbëggeel bi nga am bëgg naa ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam xattul mukk azala azili yeddab yeddkat naan ah Ibrahima Niass ni ngay bëggee yonent dafa ëpp loolu man faalewuma ko ndax loolu am nañ si ñun lu ñu leer man gis naa benn article boo xamante ne benn arab bind na ko bind na ko ci page yu bëree bëree bëree bëree bëree bëri di wax ci Baye Niass ak ngëm-ngëmam ne ñun suñu ngëm-ngëm nu ñu ëpp gëmee yonent bi dafa ëpp ak yu kenn xamut waaw di waxtaal ay dingat yu ñaaw a ñaaw di wax yu doy waar wax sax bay wax yeneen yoo xam daal kenn xamul ñoom daal jàpp nañ ne daal ñenn ji daal jàpp nañ ne sufiyanke yi nu ñuy bëggee yonent bi dafa ëpp waaw ni bëggee yonent bi dafa bàyyi ne nag man faalewu ma ñooñu ak ñu mel ni ñooñu ah na nga ko xamal loolu xam xamal ko ne man moom rek laa bëgg te faalewu ma ku may yedd ci moom wa bi anni kam qad xurimtu lazizan nawmi min zikriha bi layli tawilin wa bi anni nag nekk na it ci man kam xadd xurimtu bëri na ana boog ñaata yoon wala boog bëri na xurimtu ma xaraamal sama bopp man bàyyi laziza naw mi neexaayu neexaayu nelaw bi maanaa bànneexu nelaw bëri na lu ma ko xañ ngir moom yonent bi saa sam ci nan min zikriha ci di ko fàttaliku bi layli tawilin ci guddi gu gudd arab su ne layli tawli tawil mooy guddi goo xamante ne dangaa foog ñàkk nelaw ngir rek fàttaliku yonent bi sala yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne la fa nafsi in faatani tiibu raya turbati badri wal malazil jalili lax fa nafsi waaye maa ngi woote sama njàkkare bakken in faatani su ma faatee wala boog su ma rëccee tiibu raya wala boog su ma umpalee tiibu raya te yëpp xetab turbatil badri suufu badar suufu weer bi suufu yonent bi sallallahu alayhi wasallam wal malaas yi ki nga xamante ne moom mooy sama wéeruwaay aljalili bu màgg bi ay bu ma dumdee ba loolu xencuwu ma suufu màkk boobu suufu medina boobu waay waay fan laa jëm waay loolu la bëgg a wax fii mu ne soo bëggee xam ki may wéy kan la sayidi rusul yi moom mooy sangab yonent yi Mustapha hum moom la ñu tànn ci ñoom moom lañu tànn ci ñoom shafi un te it mooy tinu seen moo leen di tinu mooy moo leen di tinu di ñu tinu di tinu ñëpp yow ma azza bis bi nga xam dina jafe at tashfiu tinu kulla rasuli rasuli ci bépp yonent bis bi nga xamante ne tinu dina jafe ram mu bokk la bëgg a wax dina jafe ci bépp yonent ah bis boobu yonent saa saa moo leen di tinu te di tinu min jaamam yëpp rahmatul xalqi asluhu man anaaral xissa wal aqla bur a kulla alili bàyyi ne kon rahmatullahi rahmatul xalqi yonent bi moom mooy yërmande mindeef yi asluhu te it mooy seen cosaan man anaara ki nga xamante ne mooy leeral alxissi yëg-yëg yi wal aqla ak xel bur u ki nga xamante ne moom mooy moom mooy faj moom mooy saafara kulli alilin kulli alili bépp jàngoro bépp ràgg bi maanaam képp koo xamante ne feebar nga ba ràgg ba sew ba jeex tàkk loolu la ñuy wax al illa mu ne yonent bi saa saa mooy régler loolu moo koy réparé soo bëggee xamati ba tey sama soppe boobu mooy kan neel xabibulaay mooy soppe yàlla bi al jalili moom yàlla mu màgg moomu xadiman ci lu jiitu te moo njëkk lépp moom yàlla minhu ci moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci barkeem la bëgg a wax suñu waxee minhu rek mooy ci barke yonent bi waaw tukkee na ci moom naalal kamaala ci la amee mat kullu kamili bépp way mat ci la amee képp ku mat rek yaa ngi amee sa mat ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax di wér di salaatul faat yi bàyyi nee na bokk na ci wasaayil yi àggal nit ki ci yàlla ndax salaatul faat yi ku koy wér da ngay mat bàyyi nee na kuy tudd yàlla rek yaa ngi mat soo tuddee yàlla soo bàyyee rek matatoo waaye nag bi ci gën mooy tudd yàlla fàttaliku yonent bi sallallahu alayhi wasallam boo jo boobu ci gën a gaaw moo tax Cheikh Tidiane digal ñu ko minhu naalal xufraana aadamu min qablu wa ilmul asmaai min zal min za salili minhu tukkee na ci moom wala barke ci barke yonent bi naa la ci la amee al xufraana njéggal aadama moom yonent yàlla aadama min qablu ci li jiitu woon wa ilmul asmaa yi ak xam-xamu tur yi ko yàlla xamal ne waa allamal aadama asmaa kullaha mu ne min za salili ci sëtam bi la ko amee minhu naala najata yashkuru iz amama miyaahu tuufaani kulla zalili minhu ci moom ci barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam naala ca la amee najata mucc yashkuru yonent yàlla nuux alayhi salaam iz amama ba mu matalee miyaahu tuufaani ndoxob tuufaan bi kulla zalili ci bépp tooñkat ci képp koo xamante ne torox nga keroog nga xamante ne yonent yàlla nuux ba mu leen waxee yéeg leen ci gaal wi ku ci yéegul woon ñëpp ñi ci yéegutoon ñëpp keroog ci lañ torox minhu aalan niyaaru bardan salaaman li abihi barhama xayri xalili minhu ci moom yonente bi salaa sallam aala ci aala ci la mujj nii niyaaru safara sa ci la mujj moom safara sa bardan nekk lu glacé lu sedd guy ni glace waaye nag glace goo xamante ne salaaman dafa ànd ak jàmm ba du lore li abihi ci baayam ba kan mooy baayam ba barhama mooy barham mu ngi bëgg wax yonent yàlla ibrahima fii barham la ko bàyyi ñas tuddee xayri xalil yi ki nga xamante ne moom moo gën ci xarit yi moo tax benn kilifa gu mag day faral di wax mu naan cheikh mamour insa mu ne yàlla wa kullu cheyin xalaqnaahu zawjayn yàlla nee na lu ne ñaar la ci bind mu ne yàlla su ne ibrahima yonent yàlla ibrahima ci yonent yi am na ci wilaaya bi mooy yontu yàlla mooy Ibrahima Niass kon Ibrahima bële moom ci bopp Ibrahima bii woowee na Ibrahima bële Barham te Ibrahima bii Barham lañ koy woowee ndeysaan minhu yamul kalimi saara yabuusan minhu taklimuhu wa kullu jazili minhu ci moom yonent bi salaa sallam ci barke yonent bi salaa sallam yamul kalim géejëp yonent yàlla Moussa bi nga xamante ne moom moo doon wax ak yàlla saara mujj na yabu san doon lu waw waaw minhu ci moom taklimuhu waxee na ak yàlla moom Moussa ci barke yonent bi saa san wa kullu jazili yonent yàlla Moussa su demee ba am di wax ak yàlla mu ngi ko amee ci barke yonent bi salaa sallam ndax borom xam-xam yi kat nee nan bu mu ne rabbi ishrax li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisaani boobu noonu mbootu yonent bi moo ko roofu moo tax mu mun a wax wax ju leer waxatuma nag yàlla mu mun a wax wax ju leer ci nit ñi wax ak yàlla wa allamal quraanam allamahu al bayaan wax ju leer sax leeru yonent bi sallallahu alayhi wasallam lan lay roof pour nga mën ko wax waxu xol leeru yonent bi ne ruux pour nga mun ko kon nag képp ku wax ak yàlla kuy sa intermédiaire ku la branché na la leer ne ku la dugal mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa kullu jazili ànd ak bépp may bu màgg bu yonent yàlla Moussa amoon mu ngi ko amee ci barke yonent bi alayhi salaatu wasalaam min hu raqaa ci moom it la yéegee ar ruuxu yonent yàlla Isa moom mooy ruux bu mag bi moom la ñuy woowee ruuxu alkarimu bu tedd bi lil alaa ci asamaanu yu kawee malawul alaa xayra maslubin nag nekkutoon ku ñu salab wama qataluhu wama salabuhu walakin shubbi shubbiha lahu la alquran wax rayuñu ko waaye daajuñu ko daaj mooy crucifié waaw wa huwa xayru qatilin te moom mooy ki nga xamante mooy nekk na koo xamante ne daal xayru xatilin du ku ñu rey moom yonti yàlla mu isa alayhi salaam suma ayuba suma ayubu yusufu suma ismailu naalu najaata min zal jamili topp it ayuba moom it même chose ba mu feebaree yàlla natu ko ci fukki at ak juróom-ñett moom it ba ko yàlla ne dóoral ci suuf ak sa tànk ndox dina génn nga raxasee sa sa yaram borom xam-xam yi sax nee na saafara fa lañ ci génnee ndax ndox boobu lu bokkul ak ndox yeneen yi ndax ndoxu ndigal la waaye ñu xamee ne rek ne yonent yàlla ayuba it ci lii ci barke yonent bi la wéree yusufa it keroog ba mu daanoo ci teen bi ci barke yonent bi lañ ko gisee ca lañ ko sauvé summa ismailu bi maanaa leeru yonent bi la bëgg a wax leeru xaqatul muhammad yëpp moo leen sauvé ñoom ñëpp summa ismailu topp Ismaïl keroog bañ ko waroon rendi ah ci barke yonent bi lañ ko sauvé mu ne ñoom ñëpp bokk ñi ma tudd sànq ba tey naalu amee nañ najaata seen mucc min zal min min zal jamili ci ki ki rafet ki waaye yonent bi saa salaam nga xamante ne rafet na mën nañ yemale foofu première partie bi